allah da koo xam nga sababu haybatiya jumla la mhm. anna allah araada an ana la minhu jaaha wa an akuna shaafihan li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi firil na ko boppam firil na ko boppam nu mu ko firee xam nga nu mu ko firee mm. boo demee ci majmuhatul mubaraka suñ tuwaa def ne a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim mm-hmm. irshaadum mm. اعلم بأن الذين تعلقوا به لولا تعلقهم به لدخلوا النار بعد موتهم والله ولو مدة قبل دخولهم الجنة التي وهد المتقون وسبب هيبة المباركة أن الله تعالى أراد في الأزل إنني أكون شفيها لجميع تلاميذه والله مبارك واو وحال بيني وبين النصارى wa wa ad wa adxala wa adxala fii xulu fii xaw fa min mm. nii mm-hmm. wa faxalu ma faxalu wallaay Mbàkke sëñ Tuubaa nee na mm-hmm. li ma leen njëkk a wax ngeen xam ko mooy yéen ñaaju ci man jébbal ma seen bopp ma nangul leen ko mm-hmm. bu dul kon aju gi ngeen aju ci man donte saala ñu ne ah, mu ne di ngeen ko ñam sawara li tëj seen i buntu sawara ubbil leen buntu àjjana mooy aju gi ngeen aju ci man ndax seenu njëkk maa ko jaay maa ko waxaaleeg suñu borom. Mm-hmm. bi ma ko waxaaleeg moom nag daa jël seenu dugg àjjana sabab bi la yàlla def muy sama tukki bii moo tax mu ne wa sababu haybatil mubaarakati mm-hmm. li sabab sama tukki bu barkeel bii mooy am na laaha yàlla araada moo nam fil ësëli laata benn doomu aadama di ndax yàlla nammeelam yëpp ësël la woon ësël la woon. moo tax kon kon bala ngaa yeggale loolu kon ndekete. waaw ku ci am sikk sàkk yaa bokkaale. yàlla nga weddi. ndax li yàlla namm moom. loola xalaa kulli xaali ndey am. ba pare da koy wutal sabab li kulli shay'in sababan. wallaahi yàlla lu mu bëgg wutal ko sabab. sëñ bi néewul maa ko débrouillé. déedéet yàllaa ko bëgg. ah foofu la sew sew bi nekk. Hmm. fi ne bu ñu jógee naan sëñ bi ne ku def nangam nangam boo ci gisee sëñ bi amoon xam-xam. kattanu yàlla la ñuy bëgg a wane te yàllaa ko leeral ci Sëñ Tuubaa anna allah araada fil azali fil azali lo yàlla nam laata maamu kenn di juddu la yàlla programme lii may wax ne ahmadu ajjanay diw ak diw ak diw yow mii laa jox njëg yaa koy jënd da ngay tukki te moo ni àdduna andi wane na lool de waaw nit de yàgg naa yor njëgu boppam yoraale njëgu fukk eh xanaa xamoo ne suñ toll nii am na ci nit ñi ñoo xam ne mm-hmm. seen dépense suba yorunu mm-hmm. am ci nit ñi ko ñoo xam ne yor nañ seen dépense suba ak fii ba 2032 am ci koo xam ni moo yor dépense bu Masamba ak Mademba fii ba deux mille trente deux yàlla moom la ko dénk te moo koy jox sa waay. loolu de moom naa fii li nga wax wallaay ndeysaan fi ne hmm. yàlla jox na ko ma demba suba ma demba ma sàmbaa koy jox dépense te jox ma sàmba yàllaa ko jox ma sàmba waaye ca ma demba la ko jaar la wax boo xamul si sabab bi nag suñ tubaa ne inna ni akunu shafihan li hmm. jamihi tilamisati yàllaa na ma akunu ma nekk shafihan ma ramm li jamihi tilamisati mbooleem ko aju ci man yàlla ne ma ramm la nee na nag bi yàlla defee loolu daa jël ci xolub nasaraan si rof ci ak ragal min nii gu tuxoo ci man nasaraan si ragal ma naan day waajub xare mhm. Sëñ Tuubaa politique la bëgg. dana folli suñ nguur gi dana folli suñ nguur gi. wallaay ndeysaan xaw fa googu mu ci def min nii mu taxoo ci man. Mhm. nee na moo tax nag nasaraan si wa faxalu maa faxalu ñu jëf ma jëfal ma seen jëf yu ñaaw yañ ma